nit mën naa am yàlla ci jaam nit mën naa am yàlla ci jaam nit mën naa am yonent bi ci nit mën naa am yonent bi ci murid murid ñu bari nañ ko wax te xamul lu teg ñu bari dañ koy wax te lu teg murid mooy koo xam ne bu lu ma yàlla murid mooy koo xam ne bu lu ma yàlla te la budd foog mu am yàlla te la budd kooku foog mu am yàlla ma ne dogu na ci ne moom mu am yàlla bàyyi ne mu ne dogu na ci ne moom fokk mu xam yàlla mu jóg di wuti yàlla mu jóg nag di wuti yàlla bu ko yàlla agalee foofu rek bu dem di wuti fay fekk kii muy gën koo jege faa ko wuti su àggee foofu dafay du kon du jóg sax sax di wuti fay fekk li muy wuti gën koo jege mu di ko wuti fay fekk li muy wuti gën koo jege mu di ko wuti mu di ko wuti nag ñu bari ñu bari ñàkk sëriñ bu mat ñàkk sëriñ bu mat bu leen mën a àggale ci yàlla bu leen mën a àggale ci yàlla moo leen tere àgg ci yàlla moo leen tere àgg ci yàlla bëgg nañ yàlla ndax ñoom bëgg nañ yàlla buñ gisoon sëriñ bu mat buñ gisoon sëriñ bu mat foog ñu jàpp ci moom ndax ñu àgg ci yàlla foog ñu jàpp ci moom ndax ñu àgg ci yàlla xam nañ yàlla am nay waliyu xam nañ ne it yàlla am nay waliyu waaye anañu waaye nag anañ nga ne ko sëriñ Aliou mu ne déedéet. nga ne ko sëriñ Aliou. ah si waaw moom ñun ñëpp a yem. sëriñ Aliou mii moom ñun ñëpp a yem. nga ne sëriñ Mbaye mu ne déedéet. nga ne sëriñ Mbaye mu ne déedéet. Cheikh Omar mu ne déedéet. nga ne Cheikh Omar mu ne déedéet. nga ne ko Cheikh Niang ca Taïba Niassène mu ne déedéet. nga ne Cheikh Niang ca Taïba Niassène mu ne mukk déedéet. Ibrahima Niass sax mu ne déedéet. Mbaye sax bu yeboo mu ne déedéet. waaw kañ lay am sëriñ bu mat bu ko mën kooku nag kon moom kañ lay mën a am sëriñ bu mat bu ko mën a xàggale te dana dana am lay yu wóor kat ci ne ñooñu ñoom duñu wali yu mat te dana am lay yu wét kat ne ñooñu duñu wali yu mat waaw kooku moom du àgg ci yàlla mukk. kooku moom du àgg ci yàlla mukk. nga xam ne dogu na ci ne. ki nga xam nag ne moom dogu na ci. moom fokk mu jéem a jëriñu. ne moom fokk dana jéem a jëriñu. fokk mu wut yàlla. fokk mu wut yàlla. fay wax mën naa jàpp ci kii sax bu duwut moom sax. fay wax ne man daal naa jàpp ci kii rek jilee du moom sax. day daal di fekk rek muy moom. day daal di fekk booba rek muy moom. ndax yàlla gën a jege ñu di ko wuti. ndax yàlla gën a jege ñu di ko wuti. te wax na ne mooy kii xuy ku loru jëm ci moom. te wax na ne mooy xuyu képp ku loru jëm ci moom koo xam ne sëriñ jafe na ko daal koo xam ne sëriñ jafe na ko daal bëggam yàlla dafa def rek bëggam yàllaam moo def waaye bu bëggam yàlla matee waaye bu bëgg yàllaam matee te fokk mu am yàlla te fokk mu xam yàlla dafay daal di gis sëriñ bu mat bi gën koo jege mu di ko wuti dafay daal di gis sëriñ bu mat bi gën koo jege mu di ko wuti su fekkee bëgg yàlla am des na nag su fekkee nag bëgg yàlla am dafa def lu mandargay sëriñ bi fee lu mandargay sëriñ bu mat bi seen seen rek moom du ko gis moom du ko gis mukk sëñ Maodo diggante bi bap la yàlla. lii du yéen a ko defal seen bopp yàlla lañ ko defal. doxul ne cëpp yéen a ko defal seen bopp yàlla leen ko defal ak sa bopp. def na ay at. def na ay at. ñuy waxtaanee wàllu yu rëy yu fi nekkoon. ñuy waxtaanee wàllu yu rëy yu fi nekkoon. Ibrahima Niass jamono wàllu yu la woon. jamono wàllu yu la woon. Seexu Satu wàllu yu la woon. Seexu Satu wàllu yu la woon. ay bay mbay. te Omar bay mbay. waaye bu ñu ci nekkee nag ñoom duñ dara. waaye bu ñu ci nekkee kat ñoom duñ dara.